Euh, première dame démb dafa génn wax euh, nga bokk ci gouvernement bi xanaa di nga ci sànni ay kàddu balaa avancé mu du njool avant ñu ci avant ñu ciy dem kay non première dame dama koy félicité rek li mu def démb da ko da ko yeex a def réew mi sooy def lu baax danga koy war di di wane mhm. yu ci bari nag yu mu wax yoo xam ne man mii mën naa ni seede laa ci yow mii waaw man moom man moom du ma ni kenn xamoo yonent baa ngi lay nuyu te gisuma ko mhm. Euh, depuis 2012 ak léegi ñi faju ci ay sénégalais mu jaarale ko ci man kenn xamul nu mu toll ñi ci buntu rajo yeeg ñu buntu télé yeeg ñu ci baree bari ñoo xam ne wax dëgg yàlla ci man mii leen jaar ba faju ci ñoo xam ne dem nañ fi Tunisie faju ji dem ñëwaat faj seeni bët loolu moom wax dëgg yàlla ba mu koy wax ma koy dégg dem moom j'étais vraiment fier parce que yàkkamti woon naa mu def communiqué ci loolu waaw la ca des nag yeneen yam wax nag moom intéressé wu mais waaye li jëm ci wàllum faju bi moom. lu wér te wóor la ñu ngi ko ci félicité bu baax a baax ñu koy ñaanal yàlla na ko ko yàlla fay. waaw yàlla en tant que yow yow Ndiaye en tant que première dame bu génnee wax pare peut-être am nga euh, loo ci sànni parce que première dame euh, quoi qu'on puisse dire euh, c'est la première dame quand même. waaw mais d'accord mais doomu aadama la wax na ko sax. Mhm. soxla woon nag communiqué. Hmm. am na ci mbir yu mu nekk. Hmm. am na lu lu desee leer ci boppu nit ñi am na lu ñu koy waxal. Hmm. génn na def na ciy leeral. loolu kay xanaa peut-être euh, ni mu ko ni ko defee rek. waaw man de loolu lay rafetlu ndax benn mooy bu fekkee da ngaa génn di wax en tant que première dame. say wax bariwul. nga génn waxi wolof déjà. yu Euh, def ko ak simplicité bi mu wanee démb. Mhm. waxuma nag ci fond beeg yooyu man maa ngi ci forme bi. Mhm. simplicité bi mu wane démb. Mhm. toog ci télévision nationale. leeral fa ay ponk. Euh, ñu bëri gën ko cee xam duñ def lu dul rafetlu ko rek. duñ def lu dul rafetlu ko déjà moom li ñu koy dégg bariwul. waaw jaxalu ko rek. en tout cas des nag ku nekk ak sa jàng. dëgg la baat la mu wax ci fondation bee ko yitteel. ñeneen ñi xëy na li waxoon ne daa dof ak mm-hmm. daa feebara ko yitteel. Mm-hmm. ñeneen ku nekk ak ni nga ko jàngatee rek. Mm-hmm. mais nit daal boo amee cër bu li war a toog ci kanam Sénégalais kenn fayu la kenn forcé wu la mhm. nga toog waxtaan ak ñoom mhm. làkk wi nga jàpp ne lu bëri ci réew mi ñoom la ñu dégg nga mhm. wax ci ak ñoom bu ko neexoon toog tegalay tànkam sol yéreem yu seer takk ay oram yu dul jeex làkki tubaab jug dem mais defu ko dafa xalaat man sama maam ja nekk ngaabu te déggul tubaab xalaat maam yi baan ja nekk fële mu wax ak ñoom ci làkk bi ñu dégg bon li ci des na ku nekk ak voilà gis-gis ba nga tey am en tout cas daal exemple la référence la ci jigéenu Sénégal wax dëgg yàlla képp kuy jigéenu Sénégal te baax démb soo ko gisee war ngaa kontaan waaw man nag li ma ci intéressé mooy daal mooy ñi feebar te mu leen di faj. Hmm. loolu man moom ah, seede la loolu moom na ci gën a dollee góorgóorlu. waaw loolu moom vraiment moom fekkente ne moom mi ngi ñuy dégg. Uh-huh. na ci dollee gën a góor waaw waaw parce que àdduna loo am te amuk wér. Uh-huh. day compliqué. te li ma ci gën a neex gis nga waajuram wu jigéen day déglu rajo. Hmm. xalaas gii du ko raw. malaat bu ñu jàllalee fii. moom euh. moo ko koy wax. man des fois mu première dame woo ma ni ma ah sama yaay leen déglu. nee na nee nga da nee na da ngeen wax malaat sàngam nu mu demee ma expliqué ko orienté malaat bi ñu daal koy toppatoo. en tout daal moom mu en moom na xam ni elle est aimée. waaw moom nit ñi bëgg nañ ko parce que dafa sénégalais trop trop trop waaw gars yi dañ ciy sant seen euh, seen bopp ci moom ba pare man Ndiaye dama koy dégg muy wax euh, genre ma xaw a ma xaw a voyagé loolu ci waxam ji man dama tuxu ci wax ji parce que dama ko yëram dama ko ñeewantal ni ma ko gisee muy wax nit kese la liñ koy yenn yëpp diis mu baal ñëpp xam nga woyof waxtaan nekk nit kese man vraiment yàlla na yàlla sàmm ko quoi maa ngi koy ñaanal yàlla mu sàmm ko bu baax a baax a baax soso ak sosal yi ah, mais yooyu moom ak réew mais boo ko gisee mu wax rek nga xam kii nit kese la abaa et c'est très important. xam nga ñu ngi lay sosal. Mhm. di sosal Ndiaye di ma mhm. sosal réew mi fii ak sosalul la rek baaxoo. wallaay dëgg la dëgg la de. waaw fii ak saaga yi tàkkarnaase wu sosalul la rek liggéeyoo. dëgg la de.